boo demee ci ibnu duraydin day wax ne lakinnaha nafthatu masdurin isa jaasalu xaamun min nawaahiha xama am na loo xam bu feesee sab dën rek boo xëy génne doo ko tey ndax fan yi chaiaat yi dafa bari ci réew mi nit ñu bari di wax rawatina ki yëkkati kàddoom du ma ko tudd ndax xas ab jullit duma ko def te dañuy wax ne nit bu la defee euh, dañuy wax ne wa in isa kunta akram akramtal karima malaktahu wa in wa in kunta akramtal la ima tamarada kon am na suñ kilifa gu baax gu ko daa firée nit ku baax dis gor boo ko teralee moom ko ab kàccoor nag boo ko teralee mucc mucc ci ayam wala mu féttéeru dem waaye loolu amul solo ndax Serigne Touba li suñ suñu borom defal kenn mënu ko wàññi du ci wax du ci jëf du la ndax ñi ëppoon kattan di Touba bi fu ne jéem nañ faa jaar ak moom fu ne jéem nañ faa jaar moom mënuñ ci dara jéem nañoo jub ak moom booba it lam wax mooy fa in i'tazalukum fa lam yuqaatilukum wa alxaw ilaykum salaam waaye nag wa in janaxoo li salmi fajnah laha waaye nag wa in lu ci ne moo ko kon Serigne Touba loolu moo doon tawqi am mooy bu ngeen defee la ngeen defoon ñu defaat dañ defoon kon noonu ko Serigne Moussa Ka waxee ci biir mbind bi rek mooy la leen Serigne Touba léebu bañ demee boo ko delloosi ndax boo seetloo ci biir xasida yi nga xam ne euh, ci bahriyaat yi la da ngay dégg bu buy ñaan suñ borom delloosi ko Sénégal bi laa tasabbubin min nii lay wax taw bañ ko sabab kon Serigne Touba defu fa genn loo xam ne ak ñàkk fayda la mm-hmm. di fa dara luñ ko mën a jame di dara loo ne tubaab mën nañ ko nett li ndax lépp ñoom bind nañ ko muy lu leer nañ te seen bind yëpp yéem sëñ ci jom ji ak fulla ji ak fit ak dëgër gi la ñuy def mm-hmm. kon kooka tuuti na ci nit koo xam ne dafa toog fee waxtu ne muy xool li gën a ñaaw di ko teg ci deru sëñ Tuubaa mm-hmm. te muy loo xam ne nit ñi mën nañ ko saafara seen seen bopp ci benn bi wala ñaari fan waaye nag bu amee cim réew day am lu koy sàmm. Mhm. ndax pas-pas bu toll noonu pas-pas yu toll noonu sax laay wax. Mhm. ndax yëmmaloo ko Sëriñ Tuubaa. Mhm. kenn du ko fooyee. ndax bu nit ñi jugee saafaral ko seen bopp. lu ne mën na ca juddoo. te loolu baaxu cim kon moom itam na maandu. buy waxati na wax ci lam xam. na wax ci lam gëm te bàyyi ñi nga xam ne yoonam néew ci ñoom mu maandu ci ñoom. liñ mujj wax ci Sëriñ Tuubaa nag ba àgg ci di wax ne tubaab yi xamu nuñ ko nettalee sax na man diggu ma xaw di ko diglu. waaye liñ ma nettali ca nam ko waxee bëgguma jaar ci baat yi di ci juum waaye nam ko waxee demewut noonu Serigne Touba dégg ngeen Cheikh Abdoul Ahad la mu waxoon wax ju leer nañ la ci koor gi mu fi mujj fekk Saxbaan tàggooguma Ramadan nuyooguma koo xam ne Saxbaan Ramadan ñoo lay lay nuyu nag ku àgg foofa sa digg sa borom eh, tuuti ne ci mbindeef di la wax rawatina ab tubaab te tubaab yi Serigne xam ngeen ne mosu leen a nongul dara ci ci boppam bañ ko bëggee takkal médaille dafa gàntu bañ ko bëggee dem dem ba ci mujj gi ñu àgg ci ne dem nañ ba xam ne liñ jortoon ci ak liñ amoon liñ liñ bëggoon amut ndax gis nañ ne mboolem ñiy woote lu baax rawat na suufiyanke yi dañ dañuy dëddu àddina ne ci àll bi di lekk eh, ay xobi garab wala ñu dëddu loolu bu amee àdduna kenn du ko dundal yow nag gis nañ ne lislaam ji ngay woote ñëpp danañ jub ñëpp dañ tegu ci yoon kenn du tooñ te nit ñi itam adduna si dana defar ndax nit ñi danañ liggéey kon nag dañ laa bëggoon a jiital ci liñ daa tudd AOF li nga xam ne France moo ko yilifoon nga jiital islam bi yëpp bañ ko waxee sëriñ bi sëriñ bi laaj leen ba xam lu ci seen xalaat ñooña mag rafet lu ko ne ah, loolu de xanaa mbégte la ndax eh, ñoom de ndegam ñoo jortoon ci yow daal dem ba wëlbatikuwaat wax ne dañ laa bëgg a loolu dana am solo ndax eh, ñoom buñ xasee ba jiital la dañ ci force ñëpp Sëriñ Tuubaa nee loolu nag laay bañ ndax yéen ñi ànd ak man de lu ma leen digal ngeen def ko lu ma leen tere ngeen bàyyi ko xam nga loolu lu ko waral da ngeen ànd ak man ngir yàlla ci seen coobare ñoom nag lañ bëgg bu amee ku ci ànd ak man du doon du doon seen coobare force lay doon. te laa ikraha fi diini daan te inil kaafiruuna illaa fi xurur nee ñi wedd yàlla luñ la wax rek ay wor lañ ca nar kon Sëñ Tuubaa mbiram wees na loolu kon kuy wax na wax ca la nga gëm wax ca lam xam koo xam ne gëmoo tasawuf nga yem ca la nga gëm ndax ñun amuñ jotug di tontonte loolu nit day nekk ci lam nekk gëm lam gëm te xam ne loolu jëm nañ ko ay ay ay fukki at ay fukki fukki fukki at luñ gën a wax ci Sëñ Tuubaa lu ñaaw nit ñi seen postef di gën a wér ci Sëñ Tuubaa seenu doogu ci Sëñ Tuubaa di gën a dëggu seen seenu eh, eh, jaayante ci Sëñ Tuubaa di gën a dëggu kon loolu jëru sa xalaat ku am jot sax mooy nekk ci den digloo ko jéem a xool ca la ñuy wax ndax loolu amul solo man man de bu ma ñëpp toppoon ñëpp day noppalu ndax du ma ko dégg du ma ko diglu te kenn du ma ko wax lu ma ci dégg rek ci jotaay laa ko déggee bu ma àndee sama sama sama coobari du ma ko dégg loolu kon na ci na ñëpp xamee noonu am murid nag day am fulla wormaal ñam ñam bokkul xalaat ta ne ci Sëriñ yam ci eh, mel na Cheikh Abdoul Ahad wax Cheikh Abdoul Ahad Mbacké wax nee woon na am murid day mel ne ëkk te mel ne xobu garab nee xobu garab ngelaw lu jug yóbbaale ko waaye xob ngelaw la ko dugal ci pax ma nag génn waatu ko ca ñun foofu lañ nekk Sëriñ Tuubaa rek lañ dégmal xoolu xam nañ ne itam li fi suñu pësteef mi ngi wér suñ digg ak Sëñ Tuubaa suñu digg ak Sëñ Tuubaa di di di sell muy dëgg muy lu dëggru ci ñun lépp luñ yuutu danañ ko jot lépp luñ luñ dëgmal danañ ko daal ndax loolu ci liñ wees lépp dund nañ ko ci te Sëñ Tuubaa wane na ko te Sëñ Tuubaa mbiram saa su xëyee day gën a jag di gën a baax di gën a defaru loolu nag mbirum suñu borom la ndax yuridun an yutfiu noor allahi bi afwahim loolu wa yaaballahu ak uh, wallahu mutimu nooruhu walaw kariha alkafirun kon neexule waaye mënuñ ci dara saa suñ xëyee di gën a jéem a naxal mbir mu suñ dañuy mel ne kuy kuy suul kuy suul ker loo gën a jal mu gën a yëkkati ko wa rahmatullahi